ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر الوتد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر الوتد asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer juróom-ñeenti fan ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom-ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ci cere cere wàccandiku moom dibéer mooy ko ca watu wala ko ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma soril yuñ sibi jikko yi ak bëgg-bëgg yi ak jëf yi ak jàngoro yi allahumma jannib nii munkaraatil axlaaqi wal ahwa wal amaali wal adwa xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu tegeew ñam dee leen lekk ci peggu ndab li te wattandiku di lekk ci diggu ndab li ndax barke bi ci digg bi lay wàcc xadis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ida wudia taamu fa xudo min xaafatihi wa daro wasatahu fa inna albarakata tanzilu fi wasati rawaahu ibnu maaja بغير ودي لمن ما لغزاك قدي مدى سلامك بغير ودي لمن ما لغزاك قدي